summa salaatu bi akmaliha maa salaami bi atamihi ala ashrafi xalqihi wa akrami rusuli sayidina muhammadin bahjatil kawni wa diyaihi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim mbokki jullit yu tedd yi nekk ci gox yu fasantikoo yi ci réew mi ak ci bitim réew tànn leerak ak jamono di ko leerloo muy rajo télévision bu wal fajri fu ngeen mun di nekk ci àdduna bi rekk maa leeni leen di juróomi baat yi ñu yàlla boole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 di del siwaat ci kartanal yàlla di sof ak yow li ma sosoon nag yow démb bi may teqalikoog yow dëxaloon naa la ne danaa waxtaan ak yow ci fase ànd nag goo mën a gis ci teqalikoo rek lay mujj benn muy teqalikoo guñu guñu tànn wala muy teqalikoo gu ñu tànnul teqalikoo gi ñu tànn moom ci boppam mooy nga yore soxna si dema dem ba yëg ne munu leen a ànd ngeen teqalikoo ci njekk kom ni ngeen àndee woon ci njekk def def def fa imsaakum bi maruf aw tasrihun bi ihsaan teqalikoo goo xam ne nag tànnuñu ko mooy mënu leen a ànd te yéen ci seen bopp xam ngeen ne mënu leen a ànd te parewu leen ngir ko jëkkër ji bàyyiwul parewul pour bàyyi soxna si tamit parewul pour pour dem am na ñoo xam ne boo leen fasoon tamit duñ génn kër ga su ko defee yooyu yëpp nag coono lay doon te loola lislaam santaane hut ko yàlla mi yoonal sëy moo yoonal teqalikoo muy fase waaye nag dafa wane ne fase ci boppam garab la nañ ko fi bàyyi feek feebaruloo bu ko jël waaye bu feebarab ñàkk mën a ànd amee feebarab ñàkk mën a déggoo amee su boobaa nag nañ dool ñu door a utiliser jàngoro ji ja kon saafara si ak garab gi ñuy tuddee fase waaye feeg mën a ànd a ngi am mën a déggoo ngi am bu dara waral ngay fase sa soxna si moo tax yonent bi daan ko tuddee abgadul xalaali ilallah at talaaq mu ne li yàlla daganal waaye bi mu ko daganalee moom ci boppam sax da koo bañ bëggul ko daganal na ko rek waaye bëggut ko yonent bi nee na buñ la ko laajee neel mooy fase ndax fase dagg ak kóllëre la gu doxoon ci diggante jëkkër ak jabar gu doxoon ci diggante ñaari goro yi mooy ki nga ñaan ak ki may ndax ku la may jabar wóolu na la ko ñaan jabar yaakaar nga ko yow nag saa yoo damee ba dagg buum googa noona tas nga yaakaar soo demee ba dagg ko firi nga kóllëre waaye tamit am fase dafay taxaw taxawaayu dagg dana taxaw taxawaayu dagg buum ak yërmande ndax sëy yàlla ko yeewee ñoom ñaar ña ci buum ak cofeel yeewee leen ci buum ak yërmande wa ja'alna baynakum mawaddatan wa rahma saa yoo fasee sa soxna nag nga yëg nga ñàkk a dog nga buumak cofeel gi doxoon seen diggante dog nga buum ak yërmande timit gi doxoon ci seen diggante waaye fase ci boppam bokkoon na ci li tax yàlla bañ ko rawatina bu ca njaboot amee dana waral tumurankeeg doom ya ndeysaanam bëggoon seen baay lool ba mënuñoo teqalikoog moom tey seen baay teqalikoo na ak seen yaay faw ñi séparé njaboot ga jox ko yaay ja te loolu tamit danaa ci ñëw te loolu lépp fase moo koy waral dana waral tumurankeeg doom ci walis muy taq ca ca ca ca baay ja dana waral tamit ñàkk yar ji baay amee woon yéene yar ko doomam fase mi mën naa ñëw teqale loola ba loola dootut amati kon fase daal li ci nekk ci ay conséquences kenn xamut ni mu toll moom baat bi nag arab nga ko tuddee at talaaqu ah, baat la woon boo xam ne ci jamonoy jaahiliya la fi newoon bi lislaam ñëwagul sax jamonoy jaahiliya la ñoom dañ daan wax talaaq ah, waaye léeg-léeg dañ koy jëfandikoo yee ci baat baatab furqatu danañ wax tamit furqatu bayna sawjayni bi lislaam ñëwee nag ci la saxal baat booba jaahiliya yi daan def mu bàyyi fa baat ba euh, dëgëralee ko lu wuuteeg nañ ko daan defee doxaliin ba la yàlla soppi ak façon biñ ko daan defee waaye baat biñ ko doon defee mu bàyyi ko fa remplacer ko tëral ko ay xatte muy ay ahkaam ak i takk ko moom yàlla ci ni gën a xat ak nosewu ngir xiir ngir bëgg rek say des fi ak bëgg rek sëy say sax kon baat bi loolu lay tekki at talaaqu lafzun min alfaazil jaahiliyati kaanu yastaamiluunahu fi lfurqati bayna zawjayni falamma jaa al islaamu aqarra isticmaalahu wa wadaa lahu al ahkaam wa dawaabit wa xasarahu fi adyaqi nitaaqin xirsan ala baqaai zawjiyati wa dawaamiha amma nag boo jëlee maanaa mi mooy fecci buum ak sëy xallul wisaaq maxuusun min al itlaaq wa huwa al irsaalu wa tark mooy firi ak boyal ak ak bàyyi noonu la ko lislaam jëlee maanaam maanaam nag ci sharia mooy daytal rek euh, buum ak sëy gi doxoon ci diggante jëkkër ak jabar nga daytalee ko ci ay baat yu leer naññi wala ay baat yoo xam ne dafa jamtalu loolu danañ ci ñëw fase mu leer ak fase moo xam ne faseem dàkkantal la lu mel ni dellul fa nga bàyyeekoon dellul sa kër baay demal ñibbi bàyyi naa laak yu mel noonu yëpp kinaaye la dañ cey laaj loo ca nam fase moomu nag cosaanam moo doon xaraam yor jabar ba ci kanam nga fase ko dafa xaraamoon loolu mooy cosaan la ludul xaajo lu ko waral taxaw moom moo tax ma ma misaalee ko ne garab la koo xam ne nag yaa ngi wér waroo jël garab waaye nag boo feebaree jël garab nag mënut a ñàkk farata lay doon kon timit euh, fase garab la yàlla da koo def nañ ko bàyyi ci pharmacie bi rek bu yàlla dogalee nga feebar ba nga yëg ne li mën a faj sa feebar bi mooy teqalikoo gi nga door koo mën a def bu ko jigéen ki yëgee noona bu ko jabar ji yëgee noona buñ ko yëgee ndoor ñoom ñaar timit soo demee nag ci xanaabiluuna yi ak xanafiyuuna yi loolu lañ wax waaye ñi gën a bari ci fuqaaw wi ñoom dañoo wax na rek xattey lislaam yi juróom muy xaraam ak dagan ak sib ak cofeel ak ak war dafay gaar si ci say sëy léeg-léeg dafay gaar si tamit ci fase léeg-léeg fase sa jabar nekk di lu xaraam léeg-léeg fase sa jabar nekk di lu war lu mënta ñàkk léeg-léeg fase sa jabar nekk luñ sib léeg-léeg fase sa jabar nekk luñ sopp léeg-léeg fase sa jabar nekk loo xam ne mënta ñàkk comme ni ma ko wax mu juróom yooyu comme ni takk soxna mele woon rek waxoon naa la takk soxna juróomi xaaj la am na ci góor ñi góor ñoo xam ne takk soxna dafa war ci ñoom bu ñu xamul jabar xam bàkkaar ci góor ñi góor ñoo xam ne takk soxna dafa xaraam ci ñoom bu ñu xamee jabar xam bàkkaar am ci ñoo xam ne takk soxna dañ ko sopp ci ñoom am ci ñoo xam ne dañ koo sib am ci ñoo xam ne dafa dagan soo yow mu yore woon soxna tamit da dem ba tollu étape boo xam ne fase sa jabar ji dafa xaraam ci yow am étape boo xam ne fase sa jabar ji dafa war ci yow am étape boo xam ne fase ko dañ koo sopp am étape boo xam ne fase ko dañ koo sip boo ma dégloo ma farañ fànceel la juróom yooyu yëpp ni ma la ko farañ fànceeloon ba nga ba ngay bëgg a takk yaa ngeeg sa soxna si mi ngeeg yow lorul la yow ci sa bopp tamit loroo ko mu dem a dem ba ci kanam rek sa bët yi tege ci geneen jigéen goo gën a sopp nga ne naa fas sama jabar gi dara warlu ko lul loola dafa xaraam firi kóllëre la tas yaakaar la dakkal ak àndoo la dagg buum ak cofeel la dagg buum ak yërmande la ku ko def def nga lu xaraam nga xool sa jëkkër jile lorut la ngeen nekk ci jàmm nga dem a dem ba ci kanam gis génn góor gu ko ëpp alal xaw a nekk ca suuf nela la tasal ma takk la wala nga gis ko ko gën a coofe nga ne naa tas tàppa sama jëkkër ji mu fase ma maa ko nam ñaani baat yonentu bi ne kuy ñaan baat ci cause yu mel noona yàlla dafa lay rëbbu malaaka yàlla yi dañ lay rëbbu su boobaa kon moo ma fase ci jëkkër ja ak moo ma fase ci jabar gi ki ñaan baat dafa xaraam kooku dafa xaraam ñaareel ba timit nga fase sa jabar ak anam goo ko mën a fase yàqam te jamono ji nga koy fasee dafa yore reegal dafa xaram boo moo tax fase dañ koy waaj de fase ci jigéen guy gis reegal dañ koy waaj ñetti jigéen la ñuy fase ba ñeent yu jarul waaj ñeenti jigéen boo leen fase jarul waaj ki ci njëkk mooy fase màgget màgget moo xam ne gisatul reegal ngir ak mage jarul waaj bis bu la neexee jamono ju la neexee fase xaleel bu ndaw boo takk gisagut reegal ngir ak ndawe jërut waaj heure bu la neexee fase sa jabar joo xam ne yaa ngi ko takk sonn na gulee na wéet nga ne dama koy fase kooko jërut waaj heure bu la neexee fase koo xam ne dafa ëmb amee na lor yaa ko ëmbal xam ne ceew la bàyyee ko nga koy fase jërut waaj ñeenti jigéen ñii buñ leen di fase jërut waaj waaye keneen ku dul ñoom kenn rek moo ca des mooy kuy yore reegal kuy yore reegal bala nga ko fase war nga ko laaj ndax gis nga reegal mu ne déedéet gisuma nga door koo fase bu ne gis naa reegal nga ne ko bàyyil ko ba set bu setee bala ngaa joteek moom nga door koo fase kon ñi ñuy fase ñëpp juróomi xaaj lañ ñeent ña jërut wàcc juróomeel ba nag moom faw nga wàcc ko mooy ku yor regal waaye ku yoragul regal ngir ak ndawe jërut wàcc ku yoratul reegal ngir ak mage jërut wàcc koo xam ne da nga koo takk mosoo leen a wéet nga koy fase jërut wàcc ku ëmb jërut wàcc waaye nag koo xamee ne nii kuy gis reegal la te mos ngeen a wéet xalaa kulli xaal bala nga ko fase laaj ko ndax gis na reegal su ko ñu gisee nga bàyyi ko su ko gisut nag nga nga door koo fase gannaaw bi nga xamee ni bam ko gisut tamit so leen a wéet moo daloon Ibnu Omar Abdullah Ibnu Omar dafa fase woon soxnaam fekk ma nga giss reegal mu dem ci Omar ibnu Xataab laaj ko ko mu ne ko sama xam-xam heggut ci bàyyil ma laajal la ko yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu ko laajee yonentu bi yonentu bi ne ko digal ko ne ne dem fayli ji ko su ko faylee ba reegalam dagg buy téye moo xam buy bàyyi moo xam mais fase jigéen goo xam ne jamono ji nga koy fase ma nga yore reegal kenn du ko valider kon boobu mooy benn bi fase jabar fekk mi ngi yor reegal dafa xaraam nañ ci bàyyi xel waaye mer rek soxna si wax lu la naqar rek xam nga fa mu toll nga ne ko fase naa la te fekk ma nga yore regal ah loolu nag daganut de lu tax ñu tere ñu ko borom xam-xam yi ñaari wax wax bu njëkk bi ñu ne dañuy ragal nga guddal guddali yeddaam ndax boo fasee jigéen ci reegal reegal boobu nga fasee ko du ko compter waale dafay bàyyi ba set bu gisaatee regal muy benn gisaat ñaar muy muy ñaar gisaat beneen muy ñett kon kay yow soo ko fasee ci regal dem na ñeenti regal la ñu ne nag loolu nga koy guddal ak yeddam moo tax ñu tere ko ñu ne déedéet bu doon loolu rek ku ëmb kenn du ko fase ndax ku ëmb bees wax dëgg yàlla boo ko fasee ëmbam ba mën naa dem ba neuf mois mën naa dem ba huit mois booba fekk yaa ngi ko fase ci premier mois am loola kay moo gën a yàgg bu doon loolu kay kuy kuy nàmpal te buy nàmpal du gis régal kenn du ko fase ndax kuy nàmpal te buy nàmpal du gis régal balaa yeddama jeex faw mu dem ba feral doom ja gisaat yeneen ñetti yoon régal loolaa gën a gudd foofu kon nag li tax ñu tere ñu ko daal taabud la loola ñuy wax cala waaye muy luñ xam waaye am na lu ca ne luñ xamut yàlla nag dañ koy topp ci luñ xam dañ koy topp ci luñ xamut bu ne def leen donte xamuñ lu tax mu ne def leen nañ def bu ne bàyyi leen donte xamuñ lu tax mu ne bàyyi leen nañ bàyyi kon ku yore régal kenn du ko fase kooku yonentu bee ko wax ci hadis boo xam ne Omar ko laajoon yonentu bi wax ko muy lu leer nañ ñi ñaareel bi tamit dañ lay tere su sa na yoree reegal nga ànd ak moom ca reegal ga ba pare door di ko fase gannaaw bi bi mu gisee reegal ba set nga ànd ak moom ba pare door di ko fase loolu tamit tere nañ la ko dañoo bëgg boo koy fase na yore reegal ba set sonnu leen a wéetaat nga door di ko fase kon nag loolu tamit jar na bàyyi xel dañ koy waaj waaye yow man ngaa xëy tëdd ak ndaw si ngoon jot nga ne ko fase naa la mbaa ngeen bokk fanaan ci lal bëri seen nga ne ko fase naa la foo ko teg loolu baaxut kon nag ñetti façon fase yi ma wax la yëpp daganut mooy abgadul xalaali moo taxoon yonentu bi ne abgadul xalaali ilallaahi at talaaqu hadis la bopp abu daawud moo ko solo fase mi nga xam ne dañ koo sib nag mooy fase sa jabar rek ci lu duhul benn sabab buy waral fase ga loolu dafa bokk ci weddi xéewal ak yàlla jabar xéewal la moo taxoon yonentu bi ne ku takk soxna làq nga sa genn wàll gëm yàlla ndax gëm yàlla yëpp muy lislaam ñaari kaaj la lislaam kaaju sant la ak kaaju muñ ku takk soxna nag làq nga sa kaaju maanaam muñ ba la ca des nag mooy nga góorgóorlu ca yow nag xéewal gu rëy gii yàlla jox la ko nga jékki-jékki delloo yàlla xéewal gi ci lu dul benn sabab wax dëgg yàlla def nga luñ sib te la te innal mubadirina kaanu ixwaana shayatin wa kaana shaytaanu li rabbihi kafura te soxna si nga fase ah ba nga ko takkee nga fase ko soo nagu leen a wéet d'abord yow ñàkk nga genn wàllu can soo ko cenee woon cinq cent mille ñàkk nga deux cent cinquante mille ya te du juteegu leen dara su fekkee sonn ngeen a wéet donte benn yoon la loo ko cenee woon mooy cinq cent mille perte nga cinq cent mille yëpp nga koy jox su boobaa tamit yaa ngi ko dëkk ci loola yaa ngi yàq xaalis te yàqkatu xaalis yëpp mbokkam saytaane lañ moo tax alquran ne innal mubathirina kaanu ixwaana shayatin wa kaana shaytaanu li rabbihi kafura kon wax naa la fase jabar fi mu xaraamee wax naa la fase jabar fuñ ko sibee dama lay wax na fase jabar fi mu waree am na jabar yoo xam ne lii sa jàmm nekk jàmmam rek mooy nga fase ko boo ko fasewut sax yow da am xam mooy bu ak wuutee nekkee ci seen diggante mënu leen a déggoo gi ma la waxoon démb moo kam yaa sax dàkk di ko tooñ wala moo mu sax dàkk di la tooñ wala yéen ñaar ñëpp yéen a bokk di tooñante te kenn ta bàyyi li nekk ca moom aa ah, kooka nag dëgg-dëgg li gën daal ah, moo ñu teqali seen diggante kenn ku ci nekk dem wuti moromam loolu daal mooy say jàmm ja wa in yatafarraqa yughni llahu kullan min saatihi mooy koo xam ne laa maanaam law istadda shiqaaqu baynahuma walam yajid xakamaani siwa tafriq baynahuma kon faw ngi def ko nañ teqale seen diggante euh, dégg nga euh, su ko defee kon loola manta ñàkk euh, mënta ñàkk de wala koo xamee ne ni dafa gëñ ne doo ko jot ak soxnaam moo ko wax gëñ na ne billaahi dootuma jot ak yow billaahi dootuma la xamati wax wax ju bon gëñ kooku ko wax dañ lay wax ne la yar woo demal nga goreel jaam su ko defee nag eh, walla nga lexal ay miskin soo yàlla dogalee nag eh, eh, nga def ko ñu ne delluwaatal ci sa soxna nga joteeg moom su fekkee ne nag toog nga lu mat ñeenti ñeenti weer dee nga de yàlla dogal jotee woog soxna te yaa ko gëñoon dañ lay mañal ñeenti weer yi di bu ñeenti weer yi matee nga goreel jaam delluwaat ca moom su fekkee ne nag nangu woo def fay u mooy dellu ci goreel jaam pour mën a jëllaat joteeg moom foofa nga fase sa jabar ji farat lay doon far force nga fase ko moom la alquran ne li lazina yuuluuna min nisaa'ihim tarabbasu arbaati ashhurin fa in faa'u fa inna laa ghafur rahim wa in asamu talaaqa fa inna a samiun alim kooku ma ngi ca suratu baqara aaya téeméer ak ñaar fukk ak juróom ba téeméer ak ñaar fukk ak juróom kon képp ko def ilaa u la koy fuqaaw yu tuddee yaa gëñoo ne dootoo joteeg sa soxna danañ la may diiram ñeenti weer boo ca xeggee ñu ne la goree lal jaam te dellu ki sa soxna si nga ne ko duma ko def ñu ne la kon fase ko far force kenn mënu ki dara kooku mooy euh, xaaju ñaareel bi fi nga xam ne fase jabar dafa war ñetteel bi tamit ah, dana war ci góor gi mu fase soxnaam su soxna sa saxee ci njaaloo rek er bu nekk mi ngi koy fekk ak góor wala mi ngi ciy am ay preuve yu leer ne moom soxna si day njaalo dafa am ay nekkaale yu muy ànd ak tere na ko ko munu ca dara mu wax ko bàyyee munu ca dara mu waar ko munu ca dara kon foofa nag fase sa jabar ji farata lay doon mënta ñàkk da nga koy fase kon ñetti étape yi ku ko yàlla nattoo nga yore soxna fase ko nga am jàmm mu am jàmm li ko mooy kat dafay mel teeñ yuñ la yeewal ci sa biir te mënoo ko ak moom fu mu toll di la matt yéen a ngi nii mënu leen a déggoo guddeeg bëccëg yéen a ngi xuloo yéen a ngi xeex yéen a ngi jotee nañ teqale seen diggante nit ñi am jàmm wala sax délégation bi nga yónni woon ci sa waa kër yi ñu dem gisee gi waa délégation ba bañ xoolee mooy ñaar ñi teqale leen mooy jàmm nañ ko teqale wala ala kulli haal yaa gëñoon ne dootoo jotee sa soxna ñi may la ñeenti weer bu paree nga war goreel jaam delluwaat nga ne man du ko def dañ lay wax fase ko far force wala sa soxna si yàlla ko nattu dafa sax ci njaaloo heure bu nekk mang ca su boobaa kon nga fase ko am jàmm foofu kon fase fa sa soxna dafa nekk di lu ñetteel bi wala ñeenteel bi fi nga xamee ni fase sa soxna dafa nekk di lu lu dagan luñ luñ sopp ay melo la su fekkee jigéen gi daal nanguut a topp borom këram toppul borom këram wala bu toppee borom këram nanguut a topp boromam mi ngi nii day dëngee boromam day meesu nga tere ko mënoo ca dara muy yu mënoo ca dara mu monte ay xef mënoo ca dara muy meesu mënoo ca dara soo ko yeeyee jugal julli du nangoo julli ak bëri ci jigéen ñi nga wax wax wax mënoo ca dara sopp nañ nga fase ko faseem yar wax wax nga ne ko ah man kat mënu maa ànd kuy dëngee sama borom. ku jub moo ma gënal ku jubook ku ku jub moo ma gënal ku juboog man waaye nag góor ñu sàggan ñu bëri juboog ñoom moo leen gënal ku jub nga ne ko nag loo juboo juboog man boo jubut xawma ci yow soxla te yow ku juba di nga gu dégg ba ca yaa ngi meesu ma tere mënu ma ci dara yaa ngi emaayu mënu ma ci dara yaa ngi xeesal mënu ci dara maa ngi lay digal ngay julli mënu ma ci dara kon nag ñi seen jabar yi di xeesal tere leen ñi ba nañ leen fase faseem yar ñii seen jabar yi di meesu nga tere mënoo ca dara charia mu ne nañ leen fase ñi seen jabar yi nga digal leen julli ñi bañ mënoo ca dara fase leen ñii emaayu te boo emaayu boo sangoo janaba du yegg ndax euh, ema bi moo koy protéger boo jàppee du yegg nga nekk sobe suy dox boo jullee doo xam julli su boobaa yëpp tere ko bu bañee nga fase ko fase mi nag nga nekk faseem yar lii la lislaam santaane kon ku yore soxna jubóohut ak yow wala bu jubóog yow tamit jubóowut sa borom wala bu jubóog sa borom jubóowut ak yow fase ko faseem yar muy benn walla sax mu nekk koo xam ne dafa ñaaw làmmeñ ñaaw làmmeñ boo ne benn mu xas la tàccu la wala bu ñaawul làmmeñ ci yow dafa ñaaw làmmeñ ci ay gorom fu mu toll mi ngi joteeg sa yaay di ko xas fu mu toll mi ngi joteeg sa baay mi ngi joteeg sa rakk yi ci kër gi sa mag yi te la ca bëri buñ ko seetee mooy tooñ wala ma nga jote dëkkandoor ya heure bu nekk ma ngay xuloo ca marché ba di xuloo ca koñ baak mbedd ma fase ko waaye fase ko faseem yar fii fase fi sa soxna dañ koo sopp bépp jigéen gu ñaaw làmmeñ xuloo rek xeex rek ca goro ya ca mbokk ya ca dëkkandoor ya ca jëkkër ja fase ko beneen bi ci tegu mooy jigéen goo xamee ne nii ah, jabar ja dafa séentu ragal ci moom mu toggoo yu ñuy tere loo xam ne yu dansé yu ñu tere la te kenn mënta tax mu bàyyi ko hoo kooku na nga ko fase kon yii ma wax la mooy fi ñu soppee nga fase fi sa jabar ah, dinaa la wax nag fi nga xamee dañ dagan na sa jabar nga fase ko rek ah dana fa dégg nga de dana dana dana dagan maanaam nga fase fa sa jabar waaye konu mu baaxan ah, jar naa bàyyi xel ida kaanat nafsuhu nafsuhu la turiduha yow kat sa jabar ji yaa ko bëgg tut nga yëg-yëg ne daal munu ma àndoog moom kii daal gis naa ci moom jikko yoo xam ne munu ma àndoog moom maa bëggoon bëggatuma ku la ko wax nga xeeb ko sa jabar la ko waxut ku ko wax nga xeeb sa jëkkër la ko waxut su ko defee nag yow daal sa bakkan bi amatul benn cofeel wala sa xol bi jëm ci sa jabar ji gis nga ci moom loo xam ne daal ànd ak moom mënta nekkati ku la ko bëgg a téeloo lay rey ku la bëgg a muñ loo ma lay lor fu mel ni étape bi boo ca tollee dagan na nga fase sa jabar ji kon nag juróom yëpp wax naa la ko fi fase sa jabar xaraamee wax naa la ko fi fase sa jabar ñi soppee wax naa la ko fi fase sa jabar euh, euh, waree wax naa la ko fi fase sa jabar daganee wax naa la ko juróom yi yëpp nag gannaaw bi ma ko farañ fàncee yow mi yore jabar di ma déglu yaa xam juróom yi sa jabar ji ban étape la ci nekk ban kaaj la ci bu ca bokkut téel mu dëgër de waaye bu bokkee ci ñi nga xam ne euh, fase leen man ta ñàkk boo xeboo fase leen de su bokkee ci ñi nga xam ne fase leen dañ koo sopp ndax dafa lay dëngee mbaa muy dëngee yàlla nangul koo topp fase ko de naka noonu tamit bu bokkee ci ñi nga xam ne dañoo ñaaw làmmeñ di la xas di sa yaay ak sa baay fase ko de boo ragalee ci moom muy toggoo ay dansire yu garaaw yu ñuy tere noonu tamit ala kulli haal ah, soo defoon ila nga dem ba heggal ah, te fase woon a dellu fasel sa jabar ji loolu moo gën oh, su ko defee kon nag yaa bëggoon bëggatuloo sa xol bi mënatul ci moom gis nga ci moom jikko yoo xam ne mënoo ko supporté ti fase ko kon fii ma wax la séddale naa ko yow mi may déglu na yaa xam ñeent ñi wala juróom yi ma wax kan nga ci ndax balil insaanu ala nafsihi basira yow yaa koy xam de waaye man mi ko wax nag duma ko xam kon wax naa la faseek xatteya wax naa la faseek baat ba fu mu tukkee koo ci luxa bi lan mooy xikmatum nag li tax ñi yoonal fase jabar lan mooy waral loola li waral yàlla may ñu autorisation ñi mën a fase suñ jabar yi yërmande yàlla rekk la ndax yëg na ne koo ànd ak te leen a dëkkoo mënu leen a déggoo ngeen bokk nekk ci néeg yu xat yi bokku nekk ci kër yu xat yi su ngeen moytu sens man ngeen a rayante ngir ñaar ñaar ñu déggoon nekk ci benn ruq bokk benn lal bu kenn ku nekk di ray sa morom du ko yëk yàlla nag ne bala ñoo hegg foofa nañ xoddeeku bala ñoo lakkale xoddeeku ga mooy nañ leen séparé kenn ku ci nekk wuti moromam waaye gis nga fi ñi nga xamee kat boo xasee takk jabar si fii na amatoo droit teqali ko moom mukk da ngay mujj ray ko. mbaa moom mu mujj ray la la cay sosu ci ay musiba kenn xamut ni mu toll moo tax yàlla lu mu def rek moo gën moo tax bu yàlla defee lii ba pare nag nga nekk fa naan man duma ko def man duma tekk su ma fi bàyyi sama jabar ji ba yeneen yi gën a garaaw fekk la ci tamit foo koy teg gëmal ne wa in yatafarraqa yughni llaahu kullan min saatihi lu tax wa kaana allaahu waasian hakiman yàlla ni muy daane aaya yi rek moo lay daane ba mu ne min saati yi ñu ne ko lu lay xamal ne yàlla mën na ko mu ne wa kaana laahu waasi'an hakiiman loolu rek moo ci mën a tegu ku xereñe la ba lu la jox na la jox lu ko gën boo ko ñàkkee ku yaatu la ku bëri la la dara jeexul ca moom kon nag euh, bi ci des mooy lan moo waral fase yàlla teg ko ci loxol jëkkër yi tegul ko ci loxol jabar yi yàlla hakim la bi mu bëggee say des mu ne kon dama bëgg say des bëgguma teqalikoo bëgguma ko dama bëgg ngeen ànd ci ngor mu ne kon nag damay jël sëy ba teg ko ci loxol ki gën a xiir pour sëy des ki gën a xiir pour sëy des mooy jëkkër de moo taxoon moo ñaani moo defoon listixaar moo joxe woon can moo joxe woon waajtaay moo tabax kër ngir dëkkal moo pare ngir dundal bu feebaree mooy faj la ca xaju lépp moo ko yore yàlla ne yow mii gën a xiir pour sëy des sëy bi yow laa koy dénk pour nga téye ko waaye xam ngeen ne jamono jii hee tey fase bu nekkoon si loxol jabar yi kon kay sëy doo xam ñaari weer tas na koo wax mu ne ko delloo naa ko baayam xanaa yow tamit delloo nañ la sa baay di wax ju yàqu la fase moomu nag duhut ne ku ko def rek mu tabbi am na étape yoo xamee na nii bu ko nit ki fase fase ma du tabbi loolu lépp yàlla ngi bëgg rek say des fi koo xam ne da ngaa fase te ba ngay fase amoo xel danga daanu kiris daanu ay jinne sa fase ma kenn du ko compter xaleel bu ndaw boo xam ne mësoor a gut ah, kooko bu fase faseem duñ ko duñ ko compter ah, na fekk fase ma nekk mu nekk koo xam ne ko xam xel la ndax yonentu bee wax na rufi al qalamu an thalathin naimi hatta yastayqasa wa an sabiyi hatta yabluga wa anil majnuni hatta yufiqa waaye koo xamee ne nii kay dëgg-dëgg ci sa biir nelaw ngay kayan kayan ne fase naa sama jabar ji kenn du ko koo xamee na nii da ngaa ah, feebaru jinne di daanu giri ay daanu ay yësi ki boo fasee sa jabar ji kenn du ko compter koo xam ne xale nga xàmmeegoo kenn du ko fase du ma kenn du ko tabbi naka noonu kuñ fase kuñ forcé fekk la nga toog Malik ak Saafi yoo xanaa bi la ne fasee ma duur luy tabbi ñu ne la boo fasewut sa jabar ji ñi ray la mbaa ñu dur la mbaa ñu nangu sa alal ji mbaa ñu toroxal la nga ne fase naa ko kenn du ko compter la Malik xatte woon moo tax alquran ne illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman kon nag kuñ fa kuñ saam forcé koo xamee dañ koo xoo mu ñëw nekk ab appal fuuta wala ab séeréel déggul xolof ñu ne ko demal wax sa jaba gi ne ko fase naa la mu ñëw ne ko fase naa la te xamul baat naa la muy tekki tamit kenn du ko compter ndax xamul baat ba la muy tekki amaa nag ku mandi te la mandee lu dagan la dafa naan soow lu xëpp mandi kayang kayang fase jabar ja kenn du ko compter jéggal nañ ko ko wala mu lekk ceeb bu xëpp mandi kenn du ko jàpp waaye nag bu naan naanee bu tuxee bon bile wala mu mu dorogehu wala mu nan sàngara si commencé kayang kayang fase jabaram ja fase ma tàbbi na dee ndax dañ ko ko tere woon loola muy sàngara sa waru ko woon a jege bay def moo tax yonent bi daan wax ne bu leen may seen doom yi ja naankatu sangara yi dañ leen di fase ta fekk du ñu yëg ne fase nañ leen ñi continuer di sëy ñoom fekk njaaloo rek moo fay nekk faseem mer fase sa jabar ji borom xam-xam yi ay hatte lañ ci def buy Malik dafa ne boo fase sa jabar ji fekk yaa ngi mer fase ma tàbbi na ak noo mën a meree yaa xam ndax ñaareel fase du am lu dul ci mer waaye musumaa yëg kuñ tegal bool bi nga lekk lekk ba suur laaj ataaya ji naan laaj boisson bi naan mun jël sa sa biir bi dóor sa koll bi ne ko ana soxna si mun a labeek nga ko fase naa la sama xol a sedd ceew musuma koo dégg waaye kay foo dégg ñu ne waa ji fase na jabar ji rek fekk na dafa mer fase moom ci mer rek ñaare lay gën di am ah, ñu ne nag loolu la Malik wax moo tax mu ne kon boo ci fasee sa jabar gi dana wér ah, Abu Dawuda ak Ibnu Maaja Hakim ah, mu jëlee ci hadisu Aïchatu yi ñoom dañ na yonentu ba wax ne la talaqa wala itaaqa fii irlaq mu ne ak goreel ak fase du mën a wér ci koo xam ne dafa tëju irlaaq mooy koo xam ne fa mera mera mera mer ba xàmmetul asamaan seeg suusi si bët ya xonq cor déggatut gisatut ñi ñooñu noon lañ ko firee ñoom ca mer ma mais Malik irlaaq da koo firee kuñ forcé da koo firee ku nekk ci sadum junne loolu la gëm ibnu taymiya boo demee ca saadul miaat dafa ne xaqiqatul irlaaq mooy an yuxliqa ala rajuli qalbuhu mooy ñi tëj xolu góor gi ba nga xam ne la muy wax sax xamatu ko fu mu jublu sa xamatu ko xamatu dara mi ngi mel ni kuñ tëj rek ka annahu ingalaqa alayhi qasduhu wa iradatuhu moom noonu la ko firee moo tax nag ñi jàpp ci saahiru hadis bu firee ko noona jàppee iglaq muy tatak mer ba borom xàmmeewul asamaan ak suuf si ñoom dañ ne ku fase foofa fase ma du wér waaye Malick daa ko ci fase ci mer rek lay gën di amee Euh, waaye fase ki du duhul mer boo xamee tamit lu tuuti la te lu tuuti kenn du ci àtte su ko defee tamit kuy bebbantal koo xam ne dafay bebbantal dafa feebar feebar ba metti mu nekk ci la li hôpitaux yi naan fase naa la maram fase naa la biraan fase fa biraan fase na la nangam ak nangam ci baat yooya noona ngir ak bebbantal ga tàngooru wa xamul la muy wax kooka fase ma jéggal nañ ko kenn du ko jàppee euh, koo xam ne nag fo caaxaan ngay def di kaf ah, woo sa jabar ba mu ñëw nga ne ko fase naa la muy jooy nga ne ko dama doon kaf yee eh, eh, perte nga fase ma tàbbi na ndax fase kat dëggam dëgg la kafam tamit dëgg la yonentu fa daan wax ne salaasun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun an nikaax wa talaaq wa raj wa rajaatu mu ne ñett seen dëgg-dëgg la seen kaf tamit dëgg la takk jabar ñu ne dama doon kaf rek fase takk ga am na boo bàyyee tamit da nga bàyyi genn wàllu can nga de da nga ko perte xoo sa jabar ñëw ne ko fase naa la ñi wax nga ne ko dama doon fo rek fase ma tàbbi na de xoo sa jabar ne ko dama laa fase woon dama lay fayli waaye dama doon fo rek fase fayli nga tàbbi na de kon yooyu yëpp euh, nañ jar na bàyyi xel euh, fase mu tàbbi la duñ ca dañ ca bàyyi xel nañ ko bàyyi xel koo xamee ne nag da fas fase ci sa xol mer nga ñaareel góor yi benn jabar yi lay gën di dal sa jabar yi def na loolu lool benn jabar nga am bu tukkee nga soppeeku surga bu la meree nga soppeeku surga dara nga ca mënut nga mu def lu la mer nag nga mer lool denc sa xol billahi kii dama ko war a fase waaye dama koy fase yaa ngi koy wax ci sa xol bi waaye waxagoo ko ci sa làmmeñ wi ba mu dégg ko kenn du ko jàppee muy fase waaw waaw euh, fase daal mooy loo xas baatal nga dégg ko waaye boo ko waxul kenn du ko jàppee noona su defee kon nag Euh, faseem koo xam ne dafa juum muxti u dafa jubluwoon fase keneen làmmeñam jiitu ci ay baat mu moon na moom nag mu ne fas naa la xéxé xalil wax na ca lu bari waaye buy Abu Hanifa ak mbooloo xam ma dafa ne kooka fase ma tàbbi na dañ koy jàppee yaqaw alayhi qada kenn du ko may ña ca diineem ja nekk waaye ñu ne su fekkee nag dañoo yëkkati mbiram yóbbu ko ca qaadi pour ma xatte ko mu ne kat dégg euh, mu wax loola xaadi ba da koy saxal xatte ko ca euh, am am faseem ma su ko defee nag fase moomu yëpp ak yi ma la ci wax ak ya ko man ak yi ko mënut ñetti xaaj la dafa am ci lu ñu tuddee fetem sunna am lu ñu tuddee fetem bid'a faseem sunna daal mooy fase soxna soo xam ne dafa gis reegal ba set sonnul leen a jotee nga fase ko kooku mooy fasem sunna kooku mooy fasem sunna te fasema tamit nekk benn rek du ñaar du ñett ci benn jotaay kooku mooy fasem sunna lu duhul loola nag mooy fasem bidaa fasem biddaa mooy nga fase jigéen goo xamee ne nii dafa gis régal ba set nga sëy ak moom ba pare door di ko fase wala nga fase ko ci benn toogaay ñaari fase mbaa ñetti fase ci benn toogaay ah dañ ko valider mais faseem bidaa la faseem sunu daal liñ bëggoon mooy mennam fase nga fay li fasewaat jëlaat fasewaat seen diggante door di jeex lii mooy faseem sunna lu ci mën a xam nag fase moomu ñetti kaaj la am na rajiyu am na bàyyin am na batt bu ne yu mooy fase moo xam ne mën nañ koo arranger nga jëlaat ko amul joxe dara mu neex mu naqari buñ ne nag bàyyin mooy dañ koy takkaat buñ ne maanaam batt mooy loo xam ne baax da sëw ji rek moo fay dox ci seen diggante ba moom daal euh, fokk mu xamaat yeneen jëkkër nga door di ko mën a takkaat bu lool xamul benn du ca mën a xam xam naa nag diggante farañ fànce la faseem sunna ak farañ fànce la faseem bidaa ak farañ fànce la yu ak fa farañ fànce la tamit maanaam talaaqul baayini ak talaaqul batti loolu lépp dana laaj darsu moom laa ko bëgg a def pour mu gën a yaatu te gën koo mën a dégg maak yow mi la koy wax yëpp ndax ñi gën ko mën a jariñoo ndax fase dafa xaw a sensible lool xam na ki ñoo xam ne ña nga ànd ak seen jabare te ba ko lislaam jeexalee seen diggante kenn xamut kañ la xam na ki ñoo xam ne tamit euh, jeexal nañ seen diggante fekk lislaam jeexalagut ko yooyu yëpp dama cee bëgg a wax insister ci ba mu gën a leer ndax ñi may déglu ñëpp man koo jariñoo in uridu ila al islaha mastataatu wa ma tawfiqiya ila billah alayhi tawakkaltu li unib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu